Sénégal di réew mi nga xam ne ni dañu ko yàgg naw ci wàllum jàmm ak démocratie waaye ñaari at a ngi ni réew mi di jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllum politique. ba tey manifestation yu métti yu fi amoon moo ngi wëy di des ci xelu nit ñi. ci loole ñu war a amal élection présidentielle bu atum 2024 te coow li tàmbale ci wàllum saytu candidature yi. dañu gis ne depuis ñaari at li fi am par exemple ci ay violence gis nga sànq documentaire bi ñu projeté vraiment ak yàqu-yàqu yi mu indi ci réew mi ak violence ak fitna li muy indi ci yàqu-yàqu ci réew. GRADEC ak projet bu mu tuddee waajal élection présidentielle bu atum 2024 fas yéene taxaw ngir ñu amal élection bi ci jàmm ak salaam. violence ak réew. loolu moo tax ñu ne il faut que ñu gàttandu mbir mi ñu jéem a vraiment teg projet bu mel nii nga xam ne dañuy def une campagne de communication ci réseaux sociaux pour ñaax ndaw yi ak jigéen ñi pour que kenn bañ leen utiliser ci wàllu donc violence. dana tëral ay jumtukaay ngir mën a tëkku bépp fitna. dinañ ci lëkkaloo ak administration territoriale ak force de defence et de sécurité muy police ak gendarmerie li ñuy wax naan dispositif d' alerte précoce am na ay moniteurs yoo xam ne danañ leen ñu former leen. ñu yónnee leen ci yenn gox yi nga xam ne jàpp nañ ne mooy gox yi nga xam ne ci cartographie bu ñu def moo gën a mën am ay risque pour ay violence am fa ñooñu ñoo fay nekk suñu bët ak suñu suñu loxo ak suñu nopp bu ko defee lépp loo xam ne am na fa euh, naka su dul noonu ñoom dinañ ko mën a relayer au niveau di benn plateforme technologique dox ngir jàmm ak salaam te dëgëral suñu diggante doon wareefu bépp citoyen ci projet bi GRADEC na mu dugal loxoom ci élection bi ngir jàmm sax fi dàkk.